dañ xamné coalition benn bokk yaakaar duñu seeni morom ngi nuyu suñu doom Alpha organiser meeting bu am solo Alpha vous avez toutes nos félicitations de nuyu le doyen Maguette de nuyu monsieur Mansour le ministre, pour cet encadrement aussi important. Les naa élections élection yi un un baromètre l'objectif de Benoît Bokk c'est de gagner massivement ces élections de 2017 et prendre date pour 2019 pour que le président Macky Sall gagne largement les élections au premier tour

Adjaratou Lucie Cissé maa ngi nuyu jigéenu jàmmalaay di leen beral ci mobilisation du travail nuyu jeunes yi qui ci mobilisation mobilisation c'est travail. di nuyu comité d'organisation bi nga xam ne Nous ñoom ñoo tax organiser meeting

muy monsieur le maire Abdoulaye di nuyu ñëpp ñi nga xam ne nag ñooy candidat wu Benno Bokk Yaakaar ci élection yi xam ngeen ne dañoo jëm ci ay élection yoo xam ne yi dama am benn góor mu ne ma élection yi jaaxal na ma ma ne ko lu tax mu ne ma damay déglu liste yi ñuy ñeent fukk ak juróom-ñaar bis bu nekk ma di leen déglu mais ñeent fukk ak juróom-benn yëpp bu ñu waxee li ñuy teeral dañ naan na fi président Macky jóge mu ne ma président Macky Sall candidat député la wala ma ne ko du candidat député wante li nga xam ne moom la ñuy wax mooy wolof njaay moo ko wax. nee na ku wax ku wax feeñ ma ne ko ñoom wane nañu li ñu bëgg ci élection yi président de la république am na ay projet yu bëri yoo xam ne sama xarit Ablaye Ndour dage présidence ñëw na ci wax na projet yu bëri yu président am bu ngeen seetee président projet yi nga xam ne am na ko jëmale ko ci néew di doole yi at mu jot dafay laaj alal du bëri ñooñu buñ ñëwee assemblée nationale duñ ko wote ñooñu buñ ñëwee assemblée nationale li nga xam ne moom la président di def jëmale ko ci bourse de sécurité familiale te ren ñu am 30 milliards yoo xam ne def nañ ko ci ñooñu buñ ñëwee assemblée nationale duñ ko def lii nga xam ne président de la république liggéey na ko jëmale ko ci yi nga xam ne wàññi na ko wàññi électricité wàññi gaz wàññi courant wàññi ceeb wàññi diwlin wàññi farin at bu jot day laaj alal ju bëri alal jooju ñooñu buñ ñëwee nee na duñu wote li nga xam ne moom la alal jiy laaj est-ce que di ngeen nangu ay nit dem assemblée nationale nekkaluñ fa askan wi nekkal fa rek seen bopp est waa Jamalaay di ko nangu. ñoo xam ne député lañ ci liste bi ñu toog fii kenn ku nekk ñu war leen la jox ñu wax suba ba léegi yéen a ngi fi te niñ ko waxee li ci am solo mooy le 30 nan la ñuy def pour wote parce que nee nañ boo duggee. war ngaa mën a jël juróomi xob loolu nuñ ko war a defe ñu ne boo dugee wala ngaa jël benn xob xoolal xob yëpp ba gis xob bi ànd ak boppu fas bi mooy fawu bennoo ngeen jël ko su ngeen jëlee xob boobu ba pare yeneen xob yi des yëpp xobi ciw na la bu ngeen ñeent yi ngeen ci jël baax na xobu ciina nag téye leen ko ci seen loxo càmmoñ bu ngeen duggee ci mbañ gàcce bi xobu ciina yooyu ngeen di sànni ci poubelle bi ngeen jël xobu Benno Bokk Yaakaar bi am bopp fas bi ngeen dugal ko ngeen wote